Pape Fara Gning ñu dem ci ponk bu mu li ci yennkaay yi kaay ma Mamadou Mouhamed Ndiaye moo xëy jàngatal ñu ko. jërë ngeen jëf Bintu Njaay di xale juróomi at bi fi réeroon ñeen fukki fan ak juróom ndekete baayam xamoon na la yóbbu doom ja bi leen observateur benn waay bu dëkk Casamance moo bëggoon a tukki ñu boole ko Xaadim Njaay mii bàyyi Bintu Njaay ngir mu yóbbu ko bitim réew waa ji amuti moyen dajale la moo am munte fexe ba génn ci ak njabootam yéen a kaay bi di l'observateur nañu ca lañ leen nitti li nee nañu ñoo jaay seen yëf dajale ko jox ko bàyyi Bintu Njaay di Xaadim Njaay ngir mu yóbbu seen waa ji bitim réew waa ji toog ab diir munte fexe ba dem bitim réew munul it jot ab xaalisam mu topp ci ba sonn xamul nu mu mën a def ngir jotaat ab xaalisam la jëlee doomi Xaadim Njaay mu di Bintu Njaay def ko garantie yéen a kaay bi dañu lii moo indi coow lee Fatou Bintu Njaay di xale bi ñu yóbbu woon nañu ci l'observateur li tax ma topp waaj ba mu ñëwee suñu lekkool moo di dama koo xam ndax dafa ñëw suñu lekkool ne ma naa ko topp daf may jëndal goûter xale bi ne ba ñuy dem sax daje ak suñu maîtresse mu laaj ñu ngeen jëm mu ne ko sama rakk la dama koy jëndali goûter nee na noonee ci li mu dugale ci benn oto oto bi dawlu yàgg gannaaw bi ñu dugal ma ci genn gaal ba ñu teeree ci gaal gi nag ci la ñu dugal ci genn kër goo xam ne seen nas na moo fa nekk ak ñaari xale yu jigéen ñun ñett ñetti xale jigéen yi bu guddi masaana jot ñoo daan bokk fu ñu fanaan xale bu jigéen bi ne fa mu nekkoon kenn fitnaalu ko fa da daan lekk lu baax di lekk lu neex libération nañu am na leneen lu ca feeñatee ndax xale bu jigéen boobee di Fatou Bintou Ndiaye waa ji ko yóbboon bàyyi Fatou Bintou Ndiaye di Xaadim Ndiaye mooy ki ko logé woon moo ko dëkkaloon xam na waa ji bu baax a baax ñu xamante bu baax a baax ñoo fas yéene ñamante mu di ku jëg politique yeeg nguurug Sénégal bi leen populaire yéenekaay bi nañu waa Front Patriotique Défense République nee nañu été bi été bu nar a tàng lay doon ci président Macky Sall duñu ko may dara seen plan de guerre juróom-benn fukki fan maanaam ñaari weer yoo xam ne dañu koy defante ak nguurug Sénégal Sud Quotidien nañu ca jéego ya ñuy teg ngir xeex ba ca njëkk ñaar xam ne ñi ci gi dem nañu vacances ñi ci kujje politique gi ñoo yaataa yumbe ñoo occupé terrain njiital parti réew mi photo Omar Sarr bu parti démocratique Sénégal ak photo Mamour Diop Decroix bu Front patriotique défense république journal bi nañu nañu tegee seeni plan ngir fas yéene xeex ak nguur gi moo di ñi ci tournée nationale la nekk bëgg a réew mi ñenn ñi bëgg teg pression cour suprême mbirum Karim Wade bi nañu fa la fas yéene wékk seenub xeex moo di seen sawal de bataille direct fa nañu yóbbu ga ñu yóbbu mbiri Karim ca cassation loolee waa Parti démocratique Sénégal amul benn yaakaar yaakaaruñu mu dara wal nañu alxamis bi di ñëw yamuk juróom-benn fan ci août ñoom libéraux yi nee nañu ku xëy na jawali buntu Dieng gis butitam l'observateur a koy jéem a lijjanti yéen a kaay bi laaj ba yegg ci Souleymane Jules Diop laaj ko lu ko jotale ak Mankeur Ndiaye Souleymane Jules Diop li mu leen tontu moo di loolee du wax jëme ca journal bi nañu waaye nag am na ñu jege lal Souleymane Jules Diop ñoo leen leeralal yëf yëg ni mu demee mbir maa nga dooree ca ba ñu jàppee waa Y'en a ca Congo mu di ñoom Fadel Barok Aliou Sané ca jamono joojee Mankeur Ndiaye ministre affaires jugee ci jël téléphone woo Mankeur Ndiaye di ko leeralal yëf yi na mu demee Mankeur mere ko ca mer mu rëy yamale ko ca ne ko bala nga doon woo ministre affaires étrangères bu Congo da nga maa a woo baa nga déglu ma ndax may ki ko waroon a woo journal bi ñu te laata loolee coowal xale yu jigéen yi ñu fekkoon ñu faatu ci seen appartement ca jaar na fi gis nañu Souleymane Jules Diop ni mu ci taxawee gis nañu it Mankeur Ndiaye ni mu ci taxawee l'observateur de la république jox benn pooso moom Souleymane Sul Diop loolee doon mer mu ma guuxal Mankeur Ndiaye bépp avantage boo xam ne Sul Diop waroon na ko am ci ministère affaires étrangères nañu Mankeur Ndiaye da caa dëgg tànkam li gën xam bu taal bi nag l'observateur tax nañu moo di keroog ba Souleymane Sul Diop demee ca Zambie jël 2000 dollars am maanaam benn million ci suñuy koppar jënd ci billet aller bi mu diggee ne ko ko remboursé ne ko danañ la Souleymane Jules Diop secrétaire d'État na ko booleeg yeneen i secrétaire d'État mu di Youssou Touré ak Yakham Mbaye tudde leen ay secrétaire d'éclat li ko waral yéenekaay bi nañu conseil des bu am ña nga fa ñoo nga toog toogandoog ministres yi te Mouhamed Boun Abdallah Dionne bu ñu fàttali ko bi mu faloo li waxoon moo di secrétaire d'État yooyu bokkuñu ci gouvernement bi Le Quotidien nañu te nag léegi amul dara loo xam ne waa gouvernement bi ñoo ngi koy def te secrétaire d'État yi duñu ci bokk Yékini dootu bokk ci ñu bombardier di bëreel waa kër bombardier ko wax B52 le roi des arènes wax jàngi ci sunu lamb Pape Dieng di mag ci bombardier doon it manaseeru bombardier ne ñu Yaxya Jub Yékini bokkagul ci seen plan kii ko dugal ci plan moo di Eumeu Sène ci la témoigné Eumeu Sène borom tay shinga nañu fa noppi naa ngir bëre ak bombardier bombardier borom guddi guddi mbuur ñu ñu dem mbuur fekki fa député mbuur bi di Sira Ndiaye ànd ak direct fa mu ñu xamal ne moom Sira Ndiaye honorable député dafa def accident ca quartier fil ci otom ba ma nga mujj ci hôpital Grand-Bourg kaay bi nañu am nañu ne honorable député Sira Ndiaye ba muy def accident boobee bay fil ndaw si ba muy mujj l'hôpital da doon dawal otom ci yorul woon permis Mohamed Ndiaye ñu lay sant di la gërëm yéen tamit naka noonu ci seen safo ak kóolute bi rédaction bu télévision Futur Média jox leen euh, dig daje ngoon bu ci àllande ak yeneen jataayu xibaar ñu yendu jàmm